moytuwul gaz du ko teree xeeñ ah waaye tey sant yàlla rek dëgg la ubil réew mi quotidien nañu wàllum toggum toolu pétrole yi lée sangomar sénégal day daal dinay ngëpp nag kon bari ko pétrole am bu njëkk alhamdulilahi rabbil alamina bés bi la journée sangomar day waaw daal dinay jébbale nag kon premier wax alhamdulilah moo tax it day yooxu njëkk ba jib na premier cri de l'espoir dëgg la président Bassirou Diomaye Diakhar waaw moom day nit ki démb doon dalal nag ay gone ay ndongo di ay élèves yu jógee kon ci Pikine gii daal dina leen xamal carrément daa tombé bis bi ngeen fi ñëw tey est ce que yëg ngeen ne Sénégal day daal dinay togg nag bëri ko pétrole mu njëkk tey la génn waaye jàpp leen na génération future mooy yéen gone yi de danañ leen bàyyi xel bu baax waaw dalal na xel ya de moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sonko Diomaye te Diomaye mooy Sonko nga ni les ko yéene kaay ne fës oil ah toq na de maa la ko wax pétrole ba ñëw na toolu sangomar ya day waaw Sénégal nag léegi jàpp leen ne pays pétrolier la alhamdulilah dama ne la jamono ji bees kon daal dinay ubbi xarnu bu bees daal dinay ubbi une nouvelle na de ci industrie ak koom-koomu réew mi le te jàpp la ne phase bu njëkk bi day ci la nekk nii de ah ba bir mi day day daal di toll nag ci quatre virgule neuf jàpp cinq virgule deux milliards de dollars la ilaha illallah te bëgg-bëgg bi day mooy téeméeri junni ci ay bërigo pétrole bis bu ne la ilaha illallah yéene kaa gi ne dootul yàggati ti ah am na beneen buy ñëw ñëw aha waaw waaw mooy projet wu Grand Tortue Ahmeyim mooy GTA bi te mu dox suñ diggante kon ak Mauritanie gi lée waaye lii neex na ba nuppi waaye Biram Sow spécialiste la kon ci wàllum hydrocarbure waaw nee na gis nga lii fierté la mbégte la quoi nga nekk sénégalais dëgg la waaye tamit day dundal yaakaar symbole d'espoir la yoor yoor yéene kaay ne Sénégal day waaw daal dinay togg nag bëri ko pétrole mu njëkk laa la wax Sud Quotidien non bisu démb bi waaw bis ñu ko fàtte ba ilaa yomi din laa la wax bis bu historique la ci Petrosen mi lée ak Woodside gi lée waaw dama ne la jamono yu bees moo daal di koon ubbi laa la wax une nouvelle ère ci industrie bu Sénégal bi la ko di yéene kaay ne bëri ko yaakaar ba juddu na de yaakaar juddu na de bëri ko bu njëkk ba génn na de Hadji Ayouk nekk ci chambre africaine de l'énergie waaw ci yéene kaay ma jamba jàngi day nee na gis nga ëllëgu Sénégal ci boppam fi mu nekk ni lée xel dal na de wallaay xel dal na ëllëgu Sénégal moom ah xel bëri ko bu njëkk bi day daal génn nag laa la wax aa waaw waaw te gis nga mbir mi lée a forage boo xam ne day ñaar fukki teen ak benn ci ñaar fukki teen ak ñett ya xam ngeen nuñ ko séddalee déedéet xanaa fukki teen ak benn yoo xam ne day yuy togg la fukki teen yoo xam ne day ndox la ñaari teen yoo xam ni day gaz la lii la ñu préparé wu laa la wax prévoir ko bés bi la journée ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye day am na lu taxaw ci kanamam day maar di taali gannaaw pétrole yi lée ak gaz yi waaw kay waay loolu it la fa de loolu it mbira de mbira de mbira de lépp yéene kaay ne Sénégal day waaw dama ne la air bu bees juddu na te tey nag dinañ leen expliquer day ci 10 pour cent yi nekkoon Sénégal moom la ci am waaw léegi dem na sax 18 pour cent ak modalité wu nu ñuy séddee nag maanaam la ceeru seer revenu source année nit ñaa ngi tëbaka dal dee ci bëri ko bu njëkk bi waaw mais nag attention parce que Birame Diouf day expert la ci lu jëm ci wàllum question pétrolière nee na bëri benn wàll boo xam ne day investissement yi lañ ciy fay te boo jugee ca loolee amaat na beneen seddoo diggante Petrosen gilée ak compagnie bi ak nguuru Sénégal lépp a ngi dépendre rek ci bërigo yi génn par bis Omar Moussa expert la de ci contrat waaw nee na léegi nag Petrosen daa war a xippi ay gëtam laa lay wax nii amatul nelaw amul xeef lu mu liggéey ne ko xeef rafet njortu rek rafet njortu rek optimiste ci Sonko jomaay jomaay mooy Sonko bi waaw lu tax ubil wal fajiri yéene kaa gi ne nguuru Sénégal gi day waaw dama ne la léegi nag bu leen neexee buñu tëddee nelaw aha dama ne ne la xaalis a ngi jóge fu nekk di dugg ci biir réew mi laa la wax alhamdulilahi rabbil alamin dama ne la Sénégal day waaw war naa jot lu jege ñaari téeméeri milliards ci franc CFA day ginnaaw mission bu Fonds monétaire international di FMI ba waaw nga xam ne guddi ñuy wax ni lée ñu ngi ci biir réew bu conseil d'administration bi kon dëggalee bëgg-bëgg deux cent milliards laa la wax te xaalis boobee kat am na yeneen quatre cent cinquante milliards yoo xam ne dañ koo levé ci marché internationaux yi de capitaux waaw lii nag dana bi lée mën na dund gi tey rek lay neex fii nag la ñuy xamee ñi bëgg réew mi ak ñi bëggul réew mi Adama Gaye ci tribune yéen kaay waaw nee na gis nga ëttu tasu xabaar yi les journalistes yi seen bopp de presse bi waaw ñoo war a ab ndëpp laa la ndëpp national yow 40 milliards ñu ne la baal nañ la ko noonu quoi ah déedéet ñii war a fay ñee waruñoo fay loolu du doxalub réew Sonko nag loolu mu wax mel ni kuy menacer journalistes yooyee man Adama Gaye d'accord uma ci laa la wax non non xanaa loolu kay mooy bi nga xam ne kon njiital Pastef gi la di Ousmane Sonko da koo songo magistrat laa la wax lan moo tax union des magistrats du Sénégal day ne patta pataaral looloo jaaxal ñëpp dama ne Sonko jomaay mi la bi ak léegi ni lée jugun di yéeg xam ngeen mu njëkk bi lan waaw daal di nii ab décret bi Macky Sall defoon ca bi nu juge Abdoulaye Ba def ko premier président au cour suprême waaw ñu dindi ko ñu ne déet ni waay premier ministre bi barki déem nee na njiital conseil constitutionnel di Mamadou Badio Camara waaw dafa dem wëri ab décision de justice laa la wax ngir éliminer sama candidature ñu ne déedéet waay mu ne ministre de la justice bi la daf maa tamit ab vidéo militant Pastef waaw waaye songu yi yëpp kuréel gi nga boote magistrat yu Sénégal ne pat lan moo tax tax laaj leen ko te loolee laas di laajte day direct news tamit moom lay laajte ne magistrat yi nga xamante ni a wili kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko day indi na fi coow de ne danañu balee kon ay magistrat corrompu oh, yow nan nga mën a balee kon ay magistrat daal di leen traité de corrompu xanaa lii day mandargaal ne kon judiciaire bi exécutif bee ko moom waa UMS ne pata te lu gën a yées lii lañ leen doon wax de ñoom magistrat yi ñu ne bërët daal di kon jug taxaw laa la wax Ousmane Sonko daal di lay xam leen ne danañu audité soixante société laa la wax aa yéen i kaay Pape Diogaye Faye ah, a jublu ci rapport Cour des comptes ak OFNAC nga xam mi ngi loxol procureur en tout cas day da ngay génn ba léegi ni la de libération yi ne kaay urbain da jam ñaajo Edouard Lacoste yorinuk 2017 2020 bi day non doy na waar doy na waar opération yi nañu ko caxa-caxatee dama ne la doy na conseil d'orientation ba laale wu ca prix yu ba day six mille day lañ ko fixé woon pour opérateurs yi ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique waaw xamle woon na ne mètre ba day ca zone boobee daanaka ñaar fukki junni la quatre-vingt-dix et illallah mais li xew fii doy na waar point ak les éco yéene kaay waaw nee nañu marché de gré à gré yaa ma neex cour suprême ba day suba danaa addu ci juróom-ñaar fukk ak benn ci ay gré à gré libération yéene kaay ne parc automobile présidence fa day téeméeri oto yu ne may waaw moom la Diomaye ak Sonko di wër di ne nag daanaka lu tolloo ñaar fukki oto laa wax ni lé récupéré nañ leen nag leen yóbbu ca état major de la légion ouest ay généraux ay anciens ministres ay anciens chargés de mission ak nit ñoo xam ne sax liggéeyewuñ ca palais ba personne extérieure bokk na ci ay sëriñ ñëpp lañ jël jox leen oto yi laa la wax Nafissatou Diouf day waaw oto oto présidence lii kay xaxar la rek jëmale sama kaw acharnement la crise yéen a kaa ne coowal Prodac ba day waaw waa ci kaw revanche la ñu jëm wala ci kaw contumax xanaa xamoo leen ne Ousmane Sonko day ba léegi ni lée mënta digérer li ko Mame Mbaye Niang yóbbu ci ginnaaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que dossier bi nga xam ne day moom la ko tuumaalee Sonko ne woon mi ngi ci téléphone am waaw njiital gouvernement bi day xanaa daal taxaw boog ngir ñu attewaat ko mais est-ce samay a kaa ne ñàkkum gi Ndakaaru ak banlieue bee waaw mar nañ de ndox ñàkk na ci réew mi de turbine yéene kaane leneen lu ñàkk ci réew mi kay tabaski 2024 bi lee mooy xar xar yi seer nañu te xaalis amul ay xar yoo xam ne yow mani bu ci gën a yomb fanweeri junni cent cinquante mille Dakar Times de mbirum diplomatie day waaw en tout ñi ngi liggéey ngir CEDEAO ñu boolewaat ñëpp Biram Diop ministre des forces armées waaw nee na le Sénégal travaillera sans relâche à la réunification de la CEDEAO loolay dëgg boolewaat waa AES gilée dugal leen ci CEDEAO ndam lu rëy lay nekk laa lay wax ni lée ndam diplomatique pour le président Bassirou Diomaye Diakhar dëgg la Les Échos yéene kaay ak Libération waaw nee na ginnaaw nag ab vidéo boo xam ne day benn employé sénégalais boo xam ne ci benn usine mbooro teg nañ leen loxo de foo fekk fu ñuy toroxalee sénégalais rek il faut beneen sénégalais ni ci biir lii doy na waar <laughs> waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar comme que léegi bëri ko pétrole ba génn na kay est jarate ne léegi ma naan suul gaz du ko xeeñ te may yem ci sonkoy jomaay jomaay mooy sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal